wa barakaatu asalaamualeykum mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen Show ñu ngi am mbégte ak contentement ci talaata bi nga xam ne na moom mooy le euh, bi nga xam ne na talaata du moins bi nga xam ne moom mooy le 21 ñu ngi am mbégte ak contentement di leen xamal tey suñu programme dana yaatu trop Cissé Lo nee na Macky mu neex ko ak mu naqari ko juróom-ñaari at dina ko def par la force parce que Tanor Dieng wax na wax waxet Moustapha Niass def na fi wax waxet Abdoulaye Wade def na wax waxet Abdou Diouf def na wax waxet lu tax moom du def wax waxet nee def ndax moom euh, bakkanam la ci teg mbokk yi dina ñëw ci tata Viviane Wade bi nga xam ne démb ki nga xam ne moom mooy euh, euh, mbokk ci Marième Faye di xarit ci yaayu Marième fay moo doo ki nga xam mooy tata Viviane jàppante moom jàppante bu metti bañ ko rawalee moom tey ñëw na ak délégation bu fatu tarak nee na daal du bàyyi li nga xam ne moom mooy tata yaayu Marième Faye ci cooloo nga xam ne ñoom ñaar seen diggante la mbokk yi dinañ ñëwaat ci li gën a yaatu ci diggante li nga xam ne moom mooy Euh, mbir yi amoon euh, ca Karim Wade xam ngeen ne démb avocat bi nga xam ne mooy maître Clédor Ly ànd na ki nga xam ne mooy Karim Wade dem seeti doomu Karim Wade yi Karim Wade ñetti doomam jigéen ñi gis nañ ko ca fi nga xam ne mooy prison Rebeuss ca bureau régisseur ba waaye ma nga àndaloon maître Clédor Ly ñoom ñaar ku bëgg a xam euh, Clédor Ly ak metre ak ki nga xam ne mooy Karim Wade nan nañu dundee li nga xam ne moom mooy visite doom yi nag ñu bàyyi xel mbokk yi tey li ci des ay surprise lay doon ñu nag yéen suñu jógante ba ngeen am ci mbégte contentement ka nekk ci réalisation ba di ñaar nga xam ne ñoo ko séq di tonton Mag feggoo ki nga xam ne moom mooy Pape Samba Thiam ñaari réalisateur ci benn émission waaye toog bi nga xam ne moo yor son et lumière boole son ak lumière yombul waaye moom yàlla baaxee na ko ba mu mën ko ma jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Moustapha di Tafa di cameraman jàkkaarloog man feggoo ki nga xam ne mooy Maodo Mbaye nekk ak man ak stagiaire bi nga xam ne nekk suñu kanam ñoom ñëpp nag ñu ngi am mbégte contentement ci teewaayu ki nga xam ne moom mooy Njaay ca ambiance ba nuyu nañ tamit dërëm ci ambiance bi nuyu bu baax Abdou Fall ak Go Fall ñoom tamit ñoo yor ca percussion ba di nuyu tamit xam ne mooy Fatima Evans nekk diggante réalisation ak fi nga xam ne mooy régie di nuyu tutu sans oublier ki nga xam ne mooy Horatio waaye tamit ki nga xam ne mooy Jamil Ba chargé de protocole nuyu nañ ko la grande maquilleuse di maman Diallo feggoog ki nga xam ne moom mooy Yacine ñoom ñaar ñoo sot sama kanam ba tey kanam gi di nes na si waaye am nañ mbégte contentement ci Kara mi nga xam ne mooy yor sécurité biir Kouthia Show di nuyu Père Assane Dom sécurité intérieure ak extérieure mbokk yi ni ñuy def nag moom mooy gërëm ñëpp nag di tey dara du sedd bëggee pomme bëggee lait bëggee jingeer bëggee menthe blanc ñoom ñoo ñu ànd ak seen émission yi nga xam ne mooy bëggal seen mbokk yi kon waaye mbokk yi bi nga xam ne nag moom mooy baara musoo di soble boo xam ne dañ koo nokkos ba pare ak laaj boo xam ne dañ koo nokkos dañ ko defar ba pare am na fi ak kaani boo xam ne mu ngi nii ak poobar yii yëpp nag dañ koo civilisation ndax nee nañu daal euh, tuberculose bi dafa bëri te am na ñoo xam ne ci marché yi dañuy jël mbuus di ko ëf feebar boobu nga xam ne moo ne ci ñoom bu duggee ci mbuus bi boole ko poobar bi da koy lekk dem mujjee hôpital moo tax ñoom dañoo civilisé defar ko ci nag ay yoo xam ne yu sell la waaye poobar bi gën a baax ci poobar yi ak kaan bi gën neex ci kaan yi yooyu yëpp mu ngi fi ak pëndaxu euh, bi nga xam ne mooy safal ginaar kon mbokk yi baara musoo ñëw na Sénégal pour neexal suñuy togg jox ñu appétit mbokk yi tey dara du sedd lu tax dara du sedd mooy lu neex day neex ba weesu neex xaaral ma woo kenn <laughs> allo alo waa booy booy booy daal booy xamala ma ma daal booy daal man booy xoolal booy temps yi yoruma dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm dërëm booy daal temps yi yoruma dara dara dara dara man daal booy booy man daal xolol booy ba ma xoolal ba ma nekkee Kouthia ba tey musuma umoo nii booy man bi booy man daal xaw ma lan la mais booy non booy xolal non je te te te xam nga la xam nga temps yi lan moo sama poche vingt cinq ñaat dërëm ak dërëm juróom-ñett mais booy man affaire bi jaaxal na ma kan suñu grève bi waaye yow suñu grève bi lañ koy booyee yow pour yow kan yow eh grève bi eh booyee booyee <laughs> mais booy booy grève bi booy booy. <laughs> Thank you.